sa yàlla ah. sama yàlla ak sa yàlla bokkul de relation yi bokkul yàlla dañ koy bokk kenn du ko xëccoo maak yow mën nañ bokk yaay mais ku nekk sa yaay ah. ma toppatoo ma sa yaay sama yaay laa maag yow mën nañ bokk baay mooy ak sa paa relation yi bokkul rabbil alamin alhamdulilahi rabbil من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هللويا هللويا هللويا آمين Maria Maria Massamayailah Ave Maria, Maria mamma chiara, Ave Maria, Maria masamayaina, Ave Maria. Yàlla mu ne ànd leen te juboo ma andi xewal mu baawaan su ngeen jubawul nag damay toog di leen yàlla nee na ànd leen te juboo ma andi xéewal mu baawaan su ngeen juboowul nag fi lay toog leen seetaan yàlla buy mënoo muñ fopp naa seeroo oh. ngay daam ndax seeroo ngay daf ne mos laa bëgg a jooyloo léegi xale bi màgg naa ba kenn ñemetu ko jooyloo na nga dëgëroon bopp mu taxoon ñu daan la jooyloo kenn mos laa bëgg a jooyloo léegi xale bi màgg naa ba kenn ñemetu ko jooyloo Usman Doll.

Mariama Mam Jaara Ave Maria Yàlla nee na ànd na te ma andi xéwal mu baawaan su ngeen jubowul nag damay toog yéen seetaan Yàlla nee na dama dama bëgg ngeen juboo ma andi xéwal mu baawaan su ngeen jubowul nag up lii seetaan Sénégal ànd letter you boy. yàlla andi xéewal mu baawaan su ngeen You nag the toog di ñu seetaan moo Très bien, bonsoir et bienvenue. Incroyable mais vrai, ça s'est réalisé. les Faye le philosophe, l'anthropologue et bien sûr le poète, la légende de la musique sénégalaise. Il est devenu un génie Mouinda ndaanaan Koulifa li fadrin tey nag moom la ngir mu defal ñu li huitième numéro grand show grand show euh, qui est devenu un rendez-vous du samedi soir nga xamante ça sonne, su ne euh, a yi ñu un peu partout à travers le monde di wax ne euh, kan ngeen indi kan ngeen indi kan ngeen indi Kinyu ñu indi nag gis ngeen ko mu ngi Faye bien sûr ñu avons revisité, li nga moi, le répertoire Moui membre tamit AIM Nartamit tamit xam nga euh, euh, il est parmi nous ce soir monsieur Sow euh, président de l'AIM en compagnie de Abou Faye euh, ki nga xamantene euh, ñu bari dañ nan c'est un monstre ah ci walu euh, musique ci walu basse mom tamit mu ngi fi parce que c'est le vice-président de l'AIM ñu nar a waxtaanee lépp li nga xamantene da fay soxal askan bi ci walu musique ci walu culture mais effectivement ci li nga xamantene moy walum SODAV ndax ni ñu jugee ci BSDA ba téré ci li nga xamantene mom moy SODAV c'est vrai que des années et des années yag nañ ko revendiquer yag nañ ko xex ngir yoral sen yeufu bop tay nak sunu borom dogon nako mudi mu dinañ ko waxtane jafé jafé yi nga xamantene euh, ñu ngi koy dégg boobu ba tey leer na la ne Alaaji Sala Bigué Ndiaye est parmi nous ce soir comme Amadou euh, Adama Sow euh, momit it mu ngi fi le consultant et l'observateur ngir ñu yaatal xoxoj mi nga xamantene mom moy mo ñuy jox humour bi en hein, saa su parce que dañ koy soxla après avoir passé une semaine très mouvementée très débordée il est important de se décontracter ak li nga xamantene mom lañuy indil muy xoxoj waye xam leen ne ci bëss bi tamit Aziz Seck ki nga xamantene xamante momit euh, lam fi def bari na machallah euh, tay wax sabar ci walu euh, musique sénégalaise mom moko fi njëkk def on se souvient ay Adama fay dem ci yalla ñuy ñaanal fa mu nekk gënal ko fu fa mu juggé ci jamono super jamono waye tamit ñu ngi ak Ousmane Sow momit nga xamantene c'est l'homme au doigt de feuillet nga xamantene ne def tamit ci walu musique tamit mu jéggi dayo donc tay ñu dalal ay kangam ñu nara waxtane li nga xamantene da fay soxal musique sénégalaise donc légui ni dégg ngeen euh, Souleymane Faye nous Jules nous di Diego Tainak, moi, euh, mooy euh, huitième numéro wu Grand Show donc bienvenue à toutes et à tous Il ñi nga xamante en cours c'est DTV la magie de la télé di remercier ñi nga xamante ñu DTV Sénégal suñu application ou sur ci suñu site moodydtv.sn, dtv.sn donc tout de suite dañuy delluwaat sur scène andak bataille le poète la légende le génie de la musique sénégalaise Mouy Souleymane Faye a fait deuxième morceau bu ko defee mu plateau nous ñu yaatal waxtaan ndax tey am un yu war nañ ko a ngir c'est toujours dans grand show grand show c'est reparti avec Souleymane Faye et sa bande c'est tout de suite. function to the bookman, to the thing, but I'm bound back. To the thing, to the bookman, top out. To the bookman, then, she didn't think, but I'm bound again. She did it, did, but found out my name. suul ñi ngi sulli ñi di sulli ñi di suul ñi ngi defar ñi ngi yàq ñi di yàq ñi ngi defar ñi di suul mboot ñi di sulli mboot ñi di sulli mboot ñi di suul mboot ñi di gas ñi di suul ñi di suul ñi di gas ñi ngi fal ñi ngi folli ñi di folli ñi di fal di suul ñu di sulli ñu di ñi ngi defar ñi ngi yàq ñi ngi yàq ñi ngi defar bu ñu di fal ñi ngi fal lii ñu di fal ñi di fal nga gis ci digg kër gi mu ñuy andil ker dañu judd fi ko fi buñ ko gorul dañuy dee bàyyi ko fi Sénégal dañu judd fekk ko yàgg yàgg yal na yéex dañuy dem bàyyi ko fi adduna dañu judd fekk ko fi mu yàgg yàgg yàgg yal na yéex dañuy dem bàyyi ko xëccoo bi ñuy xëccoo nguur gi lu ko fi jar tiisinte beeg wala tamit lu ko fi jar ba ñi di suul ñi di sulli ñi di sulli ñi di suul ñi ngi defar ñi ngi yàq ñi di yàq ñi di defar ñi di suul mboot ñi di sulli mboot ñi di sulli mboot ñi di suul mboot ñi ngi fal ñi ngi fal lii killing it, killing. it. toujours magnifique, toujours en compagnie de Souleymane Faye, le huitième numéro de votre grand show. Euh, comme on a l'habitude de le faire tous les samedis, ñu nar a waxtaanee li nga xamante ne ou soxal la culture la musique Souleymane, s'il vous plaît euh, venez nous rejoindre sur ce plateau bu ko defee euh, ñu bokk waxtaan bi rek hein. c'est important Adina namoon nañ la moo tax ma incroyable mais vrai mais gis ngeen li nga xamante ne moom lañ leen tàmmaleel nii ci soirée bi ñu ak Souleymane Faye et sa bande et derrière on se souvient bien sûr ñi nga xamante ne euh, dañu euh, tete ci musique ku ci mel euh, tonton Sadir ci avec la basse hein, c'est important hein. Aziz Seck gis nañ ko ci Ousmane Sow gis nañ ko mom tamit donc di leen ci jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup merci <laughs> Adama na nga def bàyyi nga am jàmm yee tey moom bu bëri sax hmm. waaw yaa ngi <laughs> macha allah. ah oui oui tey moom non non tey top. tey top ah. ah non non tey moom <laughs> euh, képp ku bëgg euh, gis wala nga dégg loo xam ne. Mhm. c'est ça qu'il y a de de meilleur de ce qu'on a Qui musique sénégalaise je pense que di nga am chance ou seetaan li nar a xew fii mhm. parce que tu trouves pas mieux. on peut pas avoir mieux. Mhm. xam man yàgg naa toog fii di ko wax ci émission yi passé tudd fi ki tudd fi ki parce que dama gëm nek musique sénégalaise dafa dañ jël bob bi. nëx ko ci bir ndox bi. Hmm. ñuy doxé tank muy doxé doxé Bob. exactement <laughs> donc té dafa am titre buñ ci am. Hmm. Hmm. tay nak titre bob ngeen indi nak tek ko. waaw les ténors de la musique sénégalaise. exactement souleyman que Souleymane Uh, Zeytou Ousmane Ousmane uh, Aziz Seck moom après bëgg naa sax mu togué né mais il faut tay ah. mu def lo xamné ne. mësuñu mhm. ko def. depuis début émission bi. qui met un focus sur Aziz. Mhm. ak Ousmane xam nga lu tax. Mhm. dama jëlale. Souleymane Diego ak ñom Habib. te xam nañ bu baax li ma nar wax. parce que ñaar ñi li ñu représenter Sénégal dañuy faté nous sommes un peuple amnésique manam duñu amuñu colère. Euh, ku melne Ousmane def musique c'est important même parce que ngi wax mon jumeau euh, cadreur bi mais su ni kan la dina dina insister que c'est Ousmane qui est en train de jouer parce que Ousmane n'est pas n'importe qui au clavier euh, Aziz n'est pas n'importe qui parce que dañu def lo xamné c'est extraordinaire je pense que mën ko meuna gëna meuna a pour man nag jéego. euh pour ma djéxal fofu tay nak mom damay excité trop. parce que yéen yéen andi. d'accord andi jéego ak. grand show en tout cas. <laughs> grand show la maa ngi jégalu ci Thiam. Mm. Euh, kii euh, je pense que les ñi ngeen di wax les plus grands artistes sénégalais. mom mm. lañu ñu mom ko fi gis. Mm. ñu tuddé ko le plus grand wala les plus grands. ñom ñep so leen dajalee qui ben nek mm, ñoom ñëpp Souleymane la ñuy wër. Souleymane man de moom fa. <laughs> ñeneen ñi aussi bari nga ci borom eh. ah, donc euh, avoir Suleiman c'est avoir la le diamant. de la musique sénégalaise entre les mains waaw ñaanal ko anthropologue parce que mom du musicien Mom mm. artiste artiste la artiste la anthropologue la sociologue la mm. psychologue la légende la psychiatre la. moom mhm. Sénégal mhm. dire le Sénégal société sénégalaise scanné ko. Mhm. bindam xam nga ñu ngi ciy waxtaan sang, bi ñu préparé émission. absolument Nous muy bindee. serait bien que ni def art et lettres ci université nous ñu comment. ko moom. ñu def ci thèse. parce que nous muy bindee c'est unique. mais léegi ci bindee boobu noonu. il faut que ma laaj ko ci parce que euh, yëguloo ma. dama gis phrase yi rimes yi maa lay jeexee ma ma ma ma ma on s'en rend même pas compte mhm. ci yëguloo ma buy yëguloo ma mhm. fàllewu ma jaaxal nga ma ah suturaal waaw ah, parce olof am benn secret bu ci nekk mooy mu ngi bind olof kole yëpp danañ koy liir ah mhm. kole yëpp danañ koy liir ñu am dégg ñu am dégg donc bon c'est ñun nag suñu chance mooy quand on était jeune on a fait de la variété euh, avant bon dañu bëgg musique rek jàng musique mais dañu am ay ñu ñu roy ñu ñu roy yàgg nañu woy musique sans créer chanson mais yàgg déglu musique suñu génération les années 70, les années 60, mhm. c'est des années folles. On a une oreille musicale. Sauf que vous de créer une musique. En référence, comment créer, où sont les ponts, où sont les pauses, où sont les breaks, mhm. où sont les harmonies, les points d'orgue. Je crois que c'est un problème fils, c'est la culture musicale. Ce problème, c'est la culture musicale. Un musicien doit avoir une culture musicale, d'abord. Mais il n'y a pas du vécu. absolument a mhm. du vécu. donc moi mes chansons c'est du vécu. C'est pas des choses que j'invente. effectivement j'écris ce que je vis. Mhm. et comme nous tous les bons Sénégalais. Mhm. on vit les mêmes réalités. affection amour travail amitié argent. on a les mêmes réalités donc bon.

oui, en parlant soi-même, on parle aux autres. Parce qu'on a, même les, on a les mêmes les mêmes soucis. Tout bon Sénégalais, on a les mêmes soucis. Mais inspiration au pain boulette, mon fou me À l'école. Attends, On a gagné Malixi. Et après, le maire, de êtes c'était carvélienne. Qui était connu, maire Pain boulette, c'était unique. C'est 15-10.

waaw ah. mu naan ñeew waaw mais euh, nga baal d' accord pour avant ñu jeexal ci séquence boobu euh, ci Nicolas ni mu ko indee euh, dafa am bërante bu sa ay woy indi kaña gi ci kër gi mhm. image boobu métaphore boobu waaw ak ci ci jëlati waxoon naa la ko gore biñ daje gore daaw Euh, mais toog ba xaaju guddi di xool ndax sangu nga ah, sangu ak fi nga bëgg sa bopp féete c'est-à-dire que euh, ñetti temps Habib yéeme na c'est-à-dire que dañu toog ci benn cercle samedi tout la journée débat ci ñetti ñetti ñetti wax yooyu yoo wax ci sa ñaari way yooyu parce que doy na waar c'est-à-dire que dañ benn waay def ne amul image bu gën forte bu mu mës dégg. d'accord ci diggante góor ak jigéen. wax wax ne que tok ba xaaju guddi. Mhm. di xol ndax sangu nga. Mhm. c'est énorme cest à il moom il est marié neen dafa tok ba xaaju guddi mom mhm. mu imaginer scène bi jabaram su siiw waaw tëdd nelaw nii il a fait la même chose sangaat ko sangaat jabar ji Fon ko sax waaw te ngi nelaw mais loolu mais loolu fu mu jógee

lambaatu ko yooyu xam ne. lambaatu non c'est faux mais bon. <laughs> mais fóon ko xam ko ko c'est beau. super c'est beau exactement waaw de la beauté. d'accord mais ça am na jigéen ñu koy def aussi ah. il faut que si jëkkër. waaw boo xaaju guddi mu saganu. bon nga muuraat ko. waaw affection moom. Mm. quand c'est sincère c'est beau. c'est beau. tout à fait très bien il vient de nous rejoindre sur ce plateau euh, Aliou Kassé Aliou Kassé qui euh, présenté Kassé Star tamit Il euh, tamit ngir ñu bokk bi ci la musique tamit membre membres ci AIM donc ci nous rek Alaaji indil nañ la sa fans wala indil nañ l'en fans hein? parce que ngi nga ma rek lu mu xat xat xat xat effectivement jërëjëf Nicolas tey liñ naan ni for bal yomb na mais dugal bi te jafe mais tey mun naa ni DTV for nañ bal dugal nañ bi parce que euh, mbëkk daal fi mu jot lay dal te tey lii Adama wax foofu laay ñëwee ñu mel nii ñu lañ suñu réew bu nu waxee rek saa bu nu waxee askan wi dinañu yëg seen bopp ci li ñuy wax artiste dafa am mm. ndaa naan am artiste dafa yaatu artiste peintre baa ngi ci biir ñëpp ngi ci biir musicien bi waykat bi mais ndaanaan ndaanaan bi toujours heure bu jógee yëfu ndaanaan lay de parce que ndaanaan ci ñun ci sénégalais sunu mot bi ñu utiliser laa wax muy baatu olof muy ndaanaan kii ndaanaan la. macha allah Coly Fadri. déglu ci ay waxam yu yàgg yàgg na dama naan kii ci kër gu mag la yaroo. ay li ci kër gee kes. c'est des choses yoo xam da nga koy wax da koy wax di ko woy ngay gis loolu ci biir kër gi. effectivement. day woy woy bi muy woy yow nga gis li muy wax ci kër gi. Mm-hmm. mooy vécu bi muy vécu bi. Mm-hmm. ndax c'est pas attention te mm-hmm. c'est vrai. muy ah. teew doo ci prendre attention da ngay jégalu ah Souleymane doon wax. <laughs> exactement c'est ça la musique. gis nga keroog nee naa fi fii. wooy wa neexul ba nga doon wax waxu texte. indi nga ko tey seen musique. fii ba jant bi fay ku ne da nga koy dégg et puis da toog si sëriñ di ko déglu toog si yaay di ko déglu mm-hmm. toog si papa di ko déglu kon toog ko déglu loolu moo tax ñoom ñii li ñu ay nitu valeur ñi ay nitu valeur lañ absolument seen oyof nag ak seen mm-hmm. baax ak seen kii boo leen ci toppee sax ñi dañuy lakk nit tey ku mel ni Aziz ah tey bu nu osé xale yi di tëgg sabar man dama ko benn jour mm-hmm. xale bu ci jël sabar di ko tëgg war ngay jox àllarba Abdou Aziz Seck mhm. war ngay jox àllarba mhm. dëgg la moom moo njëkk tëgg mbëng-mbëng mhm. ci ci musique sénégalaise dëgg la dëgg la kii le grand Aziz. tey jamono super jamono dëgg bokk nag ci parce que nu ngéwél di jëre-jëre xam li muy tëgg lan la bis bu ñu ma saan nekk xale télé variété bu ñu ma saan dëgg cosaanoo cosaan ñu ñëppay daw ay waay cosaan lu mu gàtt gàtt Maguette Wade dina teg super dina teg super jamono

damay dem Côte d'Ivoire yóbbaale cassette bi dama koy déglu bam dag diko di diko émaay déglu. <laughs> merci grand yalla nga gudd fan. <laughs> très bien merci est-ce que meun nga may ben dérogation rek. dama bëggoon ci avant ngay ngay jall nak ci cour émission xamna né président mu ngi lay xaar. Euh, Habib aussi bëggul na comme dañu nek ci séquence bu importante peut-être pour xalé yi parce que xalé yi xamuñu lu bari. Sénégal amuñu mémoire. ab Habib aussi mënul toog ñu bañ a wax tuuti ci moom avant ñuy dugg ci waxtaanu droit d'auteur yeeg yooyu parce que moom dafa dafa révolutionner musique sénégalaise mm. sans mu rendre ci compte xam wax naa ko fii euh, yaa ngi rappelé wu histoire DX7 87 wëndeelu xam nga wëndeelu dagg soble boobu nga def <laughs> wëndeelu xam nga moom moo dëpp Momo Ubi Eru marimba totalement la musique sénégalaise qui qui sont après il y a eu toute la révolution avec tout le délire et ah tout le truc mais on le doit à ce garçon c'est-à-dire que tournant musique sénégalaise qui m'a mis le jogue c'est important que les sénégalais nous qui nous ki ñu parce que tay ñi dund ci musique bari na macha au Sénégal mais suñ né Habib contribution ci musique sénégalaise c'est important de le documenter. on ne documente rien dans ce pays. té xalé yi ñu kan moy kan qui a fait quoi. et c'est important juste une may minute bobu ñu marqué ko comme ni ñu wax ci Souleymane wax ci grand Ousmane ak ñom Aziz c'est important que xalé yi ragné ñi ñu bare ngi tay génn ay production def lu nem parce que man dama xam parce que am am fu jaar. on a presque fait 20 ans ensemble. di liggéeyandoo. Mm. ci Youssou ci Super Étoile man dama fekkee. lu bari mais c'est un homme très discret. chapeau dans l'ombre c'est un homme de l'ombre il est balèze mais il def na fi lo xamné <laughs> way la dé way la ah c'est important que nit ngeen je tenais à dire ça avant y aller parce que nous le Effectivement. a loolu. voilà effectivement voilà Aziz ay Samba Abidjan dawal ay ah. <laughs> ay <laughs> ah. <laughs> te super étoile hmm. ah oui bien sûr moi personnellement. Uh-huh. en tant que musicien. j'ai eu la chance de faire de la variété. donc euh, une culture musicale donc a eu a eu euh, il est très spécial. Il est spécial. Mmh. Très spécial. Parce que euh, la base musicale est là. Mais il harmonie, harmonie, harmonie. Mmh. Il faut meuble la musique, il faut habiller. Oui, absolument. Vous faites d'elle en tant que bassiste. Quand mmh. on basse faut am solo musique. effectivement. rek hein, basse solo de musique une batterie. donc bon chapeau quoi. chapeau bien que. am na benn souvenir boo xamante ne euh, xam nga am na ay jamono yoo xamante ne Super Étoile. tous les 25 décembre. dañu joué euh, stade Demba Diop am na benn boo xamante ne Assane Thiam ñëwul.

donc ñu dugg ci euh, dans le vif du sujet très rapidement ñu waxtaanee ko parce que c'est important président ay muy Zeynoul euh, ñëpp ràññee nañ ko euh, ci djégo yi nga xamante mo koy def Zeynoul man dama lima ma xam rek moy lan moy droit d'auteur. Ba droit d'auteur nak moy par exemple ku mel na père Souleymane Faye wala Habib ñu liggéey seen défar seen œuvre ba paré jël ko dénk ko benn société bi nga xam ne koy valoriser. Mhm. société bi délivrer ay licence ñi nga xam dañuy war a utiliser œuvre yooyu ah collecté ci xaalis ba pare fayat leen ko. Mhm. loolu moy droit d'auteur. mais so gisee droit d'auteur légui dafa am droit voisin. Ah, waaw wa tu fofu la doon jëm. voilà droit d'auteur bi nga xamni mom lañ dan fay ak BSDA. Mhm. ba légui sax ndax so da fayagul droit voisin dañ ko dan fay ñi rek nga xamni si chaîne production dafa dafa am chaîne producteur bi si bopam bi nga xamni ni la ci def wala initiative am la koku dawul won fayu dañ dan fay juste compositeur bi ak arrangeur bi mhm. ak auteur bi d'accord léegi nak voisin bi yi nga xamni moy les droits voisins yi nga xamni ne ñoo ciy nar a bokk nga xamni amna am na si yeneen dëkk dans des sociétés de gestion collective mu nara am Sénégal moy ne yow mi nga xamni sax da nga participer ci production bi te mhm. arranger woo composer woo mhm. nek auteur interprète nga léegi dañ lay fay parce que da participer ki nga xam producteur bi la moo jël xaalisam par exemple financé Souleymane Faye mu def album moom moo am droit pour ne jaay leen album bi wala bu ñu ko jaay kooku it dañ koy fay ak copie privée bi nga xam daf ci bok copie privée moy comme dañu xamné support yi jël musique manam téléphone ci la bok clé USB ci la bokk ordinateur yo yëpp légui dañu am ay taxes yu ñu ciy def parce que ce sont des ce sont des outils yi nga xam euh, dafay dafay jël musique ñoon tamit ñi koy produire wala ñi koy commercialiser dafa am taxe bu ñu leen di teg récupérer wat ko joxat ko ayant droit et tas leen ko lolu moy droit d'auteur lolu moy droit d'auteur voilà droit voisin droit d'auteur ak droit voisin voilà d'accord très rapidement pourquoi pourquoi le choix ñu ñu xamone AMS amone 17 ans 18 ans ñen créer AIM Bon AIM bon dañ ko créé effectivement AMS nekk na fi 17 ans mm. man mi bok na ci ñi créé AMS bokk naa ci membre fondateur yi mm mais bañu démé dal au bout de 17 ans aussi ba gisuñu suñu bop artistes yépp kenn gisu sa bop maanaam ci yan fànn. non parce que association bu taxawé je pense que dafa am rôle bu mu wara jouer artistes yi am nañ ay soxla yo xamné taxaw nañ fi yo xamné peut-être ay nit ay association ñoko wara war jël en charge manam da ngay gis ñoo xamné ne dañuy feebar ma te fi ñi mujj du rafet ah te loolu yëpp aussi amul kenn amul ben taxaw donc ñun ay am nañ ñëw gis nek lool yépp ñi fi nekkoon defuñu ko léegi ñu jàpp ne ñun aussi am na ci loo xam ne suñu wàll la ndax la ñuy def parce que utuñu ci xaalis utuñu ci dara ndax tey man damay bàyyi sama ay soxla comme ñeneen ñëpp dañuy bàyyi seen soxla pour toppatoo loolu maanaam seet ñi nga xam ne ñu ngi féete suuf ci biir aar bi ñu xool la ñuy mën a def teg ay mécanisme yu leen war a mën a dimbali muy ci wàllu faju ci wàllu coopérative d'habitat ak yeneen ak yeneen ñun lu social bi moo ñu tax a jóg donc loolu moo fi indi AIM ñu newuñu pour xex wala dara mais nañu ñew gis ne que li fi fekkoon nekul li nga xamne manam ñun mo doon suñu bébét mom la ñu xalaat effectivement yag nañ ci musique bi 17 ans ñu fi mais xeyna musique kess nañ doon def nañ ko joxon nak ño xamne côté bobu volet social beeg yooyu jox ko ñeneen ñi nga xamne ne peut-être on s'est dit que ñoo ñu ëpp jot ah ñom ñu diko nopp tool ñakul nañ ne ñu amoon xel bi wala amuñu moyen pour def ko mais nañ amul juste jot pour mën tok toog toppatoo donc on s'est dit que légui parce que le temps tamit na koy créer jot na koy du lo xam da nga nan non oo jot oo jot àddina dina dem fo xam ne da ngay tok na naan xaar ma ut jotu def li xaar ma am temps wu def li on s'est dit qu'on va prendre le temps de nous organiser comme association mais aussi xool li nga xam lepp lu artiste muy sen li nga xam manam euh sen meilleur devenir ñu jéem a waxu waxuñu ne mën nañ lepp mais li ñu ci mën a dox yi jéego comme on a eu à le faire dans la musique tek ay jéego ba nga xam

amna benn côté bo xam dimbalé nañ ko ñeneen ñi. Hmm. waaw ñun daal lool moy suñu mbébét. d'accord lool moy AIM. lool moy AIM. d'accord souleyman euh lan nga dundu ci ci ci droit d'auteur droit voisin ba yëg ci sa bop durant euh, cursus bi nga xamante ne jot nga ko def euh ci musique. bon droit d'auteur xam nga man euh, à l'époque euh man dund def na musique lu yag xawma ma sax droit d'auteur amna bon na ci morom. Après, nous sommes ici, nous sommes ici. Nous sommes ici. Euh, mais ce que je veux dire, je veux critiquer le droit d'auteur. C'est ce que je fais. Réal. Chaque six mois, je fais. Euh, des fois, j'ai un problème de famille, ils sont bêtes, mais ils sont vraiment.

mais bon moi je préfère rester calme quoi parce que sommes ah, sénégalais nous sommes très attention <laughs> hein? mais est-ce que a une question préalable régler avant parce que wolof que vous wax que choses pour euh, point comme disent les américains da mis point <laughs> da ngeen xaw rat rate touti raté coche bi euh, euh, man amna chance touti xamuma ci lu bëree bari mais xaw naa ci xam touti abib xamna euh, ci affaire droit touti parce que liggéey nak artiste quand même te gis vraiment différents droits yi édition tous les tous les contrats et tout ça problème bi ma meuse li ma li ma sénégalais musique sénégalaise moy que chaque musicien musiciens yi sàggan mais pourquoi bon Dieu ku mel ne Souleymane Faye warul dem ba mbir droit d'auteur ak même son portefeuille d'édition même sur l'international parce que ce portefeuille yow rek pour jël cet exemple tay son amone management bo xamné nit bo xamné dang mes droits partout d'image ak Souleymane di nga di nga di nga di nga am mbetteel. dafa wees dafa wees loolu. non weesul. sûrement sûrement weesul. parce que ñoom abi mën nañu lui il a des il a des contrats moom. kii moom il a des contrats. Euh, xam na bu baax li may wax. voilà loolu weesul. ndax <laughs> weesul mais le fait que yi musiciens sénégalais kenn wala ñaar laa ci mës sa gis. ñu ngi koy toppatoo parce que dañ jël nit di ko fay. mu toppatoo loolu. amul leneen lu muy toppatoo. Hmm. kooku day xëy suba. ba guddi lenn li muy def mooy nekk téléphone nekk ci ordinateur yi wala voilà toppatoo réseauté dajale li waa ji am ci addina bi hmm. ku ko amel ba Japon dina ko xam dina xam rek clé de répartition yi ko BSDA war yi ñu war yónnee BSDA ak su demee BSDA ban chèque la fay fekk boo demee SACEM da ngay yéemu waaw mais pourquoi yéen SACEM aussi am na koo xam ne aussi naay wérte la moo rajo Dunia la rajo mooy liggéeyam lépp lu rajo dunya teg suba ngoon bind kii tey mooy liggéey absolument exactement organisation système d'organisation boobu amuñu ko boo demee système ku mel ni BSDA heure bi yoo xam ne BSDA moo ko moom di ko loué mu am rentabilité mais mais monnaie bi fan la fan la dugg créé dara gis nga gis nga gis nga gis nga Nicolas. ay bien ay bien la ma pour pour après ma ma. commencé ah, Habib mu ñëw bon mais. gis nga fii Sénégal. man dama ni Sénégal suñu lépp noonu la mel. même tey jii boo dee tabax kër nii. xam nga da nga war dem un certain architecte. Mhm. mu defal la plan. exact nga woo un ingénieur.

seen rôle boo xam ne rien pour informer ki xamul. voilà. manque d'information boobu c'est grave. man foofu laa dama ni wañ gi mi bañ a léeg-léeg ci mooy ci mbay grave gis nga Nicolas moom bu ma maa ngi koy jël tey ji même ñun suñu yi am na tey benn kii bu ci bu ci état bi di jël mais tey am na koo xam ne moo war a nekk ci ginnaaw saale bi gi état bi kii ci moom bu kii mënu yow ko état bi dagg na ci yow nangam saale bi gi xam ne sax moom société bi boo considéré nañ ko comme un citoyen amna luñu jël ci mom ba bo léegi saala bi bu romé ben mbuusu ndox hmm. war na ni mom citoyen la li jël mbuusu ndox bi sànni ko très bien Sénégal c'est-à-dire non lañu ñuy musique nak hmm. dafa doon lo xam dafa vague li ma nan lu né dafa naw dugg seen biir <laughs> te to len génne sax nan fi jabar am fi ay dom sax fi bi jaaw am fi ay seuf pour génn len du yomb du yomb c'est ça Habib dama bu bëggoon rebondir tout li ci grand souleyman lu wax rek hmm, c'est vrai que bon yenen société de tour yi nañu amone à l'époque peut-être nit bu nek bo xamné day topoto télé télévision limuy muy ak la mais légui avec l'informatique am nañ jumtuwaay yoo xam ne soxlawul sax nit di fa toog di xam mën nga tok sa kër xam li DTV teg ainsi de suite ainsi de suite donc loolu du loolu yooyu réglé na c'est-à-dire c'est comme la médecine tout de da fay avancer mais benen côté bi moy comme li Adama doon wax aussi wàllu recouvrement des des des moom la ñuy recouvrement droit de droit de droit de machin les ñooñu dafa am ñoo xam ne ci spécialisé xam musique aussi comme li nga wax dafa am ay manager dafa organiser. secteur la boo xam ne dafa am ay branche malheureusement Sénégal amagul loolu man par exemple je suis obligé de faire recours à des étrangers des américains mhm. wala français pour nous recouvrir mais effectivement bu ñu lay recouvrer di nga gis ne que y a beaucoup de droits c'est ay droits yo xamné ne monde bi dafa tass ñu ngi nelaw ñu ngi nelaw les man ay droits mi ngi nelaw donc lolu lolu loolu BSDA mënu ko gérer absolument il faut nous comprendre loolu. waaw loolu c' est privé loolu Sodav ak yooyu mënuñu ko gérer loolu mënuñu gérer parce que mënuñu ko amuñu possibilité amuñu moyen. bien que ñoom aussi. Mhm. ñoom lañ tuddee et bon Soda, ñoom ñooy les premiers ah, managers d'artistes. oui parce que ñoom ñooy exploiter. répertoire artiste mais aussi exploiter répertoire artiste bi fam fu mu yem. am ci yo xamné ne ci côté recouvrement yi yenn yi bokk. Mhm. donc ki nga xamné privé la na koy dem jël un cabinet privé mu gérer c'est comme un cabinet d'audit dang koy gis mu xolal la càmbaral la vraiment affaire de partout xol ko ci kaw ak ci souf pour man ko pour man ko gis donc lolou du liguey bo, xam dafa yomb mhm. effectivement bokk na ci yo xamne ne ñun aussi suñu association dans le cadre de l'association de de l'AIM mhm. ñi ngi xol aussi lan nañ mëna xolé sa ay nit formé lañ parce que nous on parle d'industrie musicale le plus jëm ci industrie musicale donc yoy yeb génnu ci manam fexe gaay am ay dem former ay nit pour lolou mhm pourquoi pas pour les Sénégalais pour tout le monde. Mm. donc mën nañu soxla Sénégalais pour ñu defal ko Camerounais yi wala defal ko keneen pour defal ko tous les tout tout la toute la. sous-région ay formations. non mais defal ko ñeneen sax. Aliou ah, Aliou Kassé euh, Aliou mais Aliou man vous bëggoon rek nga wax ma Aliou Kassé euh, pourquoi le choix bi nga def ba adhéré ci li nga xamante ne mooy en tant qu'artiste. waaw tout d'abord damay nuyu ah, sama maestro bi ngeen invité parce que moom Souleymane Faye ah bokk na si ñi nga xam ni ñoo tax tey ma gënoon bëgg a def musique depuis albumu doole bi mun naa ne man si fans club sax xalam de la woon hmm. parce que dañ daan toog di jàng mais ñuy jël ay paroles am di ko étudier hmm. di imposer suñu professeur sax pour ñuy wax def ay thèmes si si si paroles yooyu hmm. mais léegi doole gis nga dañ ko changé de léegi léegi nee na euh, nga nga bàyyi tux bi wala nga wàññi ko ah, nga bàyyi naan bee wala nga wàññi ko ba jëf baax na ah, ginnaaw mënu ko bàyyi mu wàññi d'accord tey vraiment plateau bu riche bi ñoom euh, Adama Sow la maestro Adama Sow bi nga xam ni moom aussi il connaît beaucoup de choses ci affaire musique sénégalaise mm. ak euh, sama xarit bi Sala Bigué waxkatu dëgg rek la lu neex rek lay wax jàmm rek lay wax waaw ah sama grand Aziz bon man lu tax ma ma ma ma wu parce que dama gis ni vraiment a ah, affaire buñ koy sanc sax mun naa ne bokk naa sax si membre yu ko yu yu bokk si sanc bi ndax euh, dafa nekk li nga xam ni suñu intérêt dong dong dong moo ko tax a jóg ah d'accord amoon na fi ay yenn association yu fi amoon ay AMS ay affaire c'était bien mais après dañ dem ba am on a plus on avait plus d'informations. d'information bon day am lu xew doo yëg communication bi jàllatul woon te loolu bu amee rek day yàq quoi même côté droit d'auteur ngay dem droit d'auteur tey nga def ay album yoo xam ni ay succès lay doon hmm. mais nga dem di fa fayeeku la non RTS rek xam nga xaaral RTS su fayee et pourtant droit d'auteur je crois que c'est large quoi je crois que lieu public bo dem war nga fa mëna fayé ko droit d'auteur muy si musique euh, restaurant yi yu ñuy tek musique mm. baar yeeg euh, tak oto yeeg tout mm-hmm. euh aéroport yeeg vraiment fep fuñu fay fu tek musique du fay tek sa musique chaîne la wara nek quoi chaîne la wara nek mais da ngay dem ñu né la bon xara RTS fay fayagul mais loolu aussi je crois que xana ak société bu bess bi di am je pense que lool tamit dinañ ko xalaat mm wala ñu ne la ok del jouer ci hôtel yi hôtel yi mooy mooy fay xaalis mais pourquoi te pourtant yow sa musique rajo bi surtout man je me rappelle très bien li ngay jaay moo lay jaay ba muy génn mais moo defoon buzz partout damoon na ba sax côté Afrique bi vraiment mais su ma la waxoon tey li ma si li ma si daan fayee ko droit d'auteur da nga naan c'est pas vrai ay cent mille francs ay deux cent mille francs si loo xam ni xam nga ñëpp ko dégg est-ce que ah toog nga année boo xamante ne li nga fayeeku boo ko làmbee nii di nga xam ne que ne dina xayma ak million. man daal benn at dong laa mës a toog ñu woo ma ne ma dañ lay defar rappel xam nga man leen rappel xam nga rek ñun aussi artistes yi dañu manqué information. Hmm. mooy lu grand bi di wax rek sàggan dafa am foofu xam nga gars yi dañuy nëbb yu bëri. Hmm. pour mën a def seen jeu. loolu moo fi war a deñ rappel nga ñëw ñu jox la un million. ci koo xam ni vraiment.

pour vraiment artistes yi xam sen droit xam lan lañu wara fayeku xam lan lañu doon ñom motax man ma gëm AIM AIM mm-hmm. parce que bokku bokkuñu ci ay affaire de lobbying wala ay ay affaire de ñu jënd la wala ki mm-hmm. xam nga ñun association bi lima ma ci gis vraiment lu deggu la ci gis motax vraiment ku melni ni Fay Faye xam ne ni il est il est direct mm-hmm. jambar la kat la xam nga bokkul ci ay tiaxan ku melni euh, euh, Zeynou ah am na bagage technique bu grand boo xam ni vraiment jàng na. xam na affaire yi daal. Mhm. ay ay ay waa xalam de ñoom ñoom grand tafa gaa yi bëri daal ñu ngi si association ay nit ñi nga xam ni. Mhm. c'est des monuments de la musique sénégalaise tey ñoo yore association boobu. d'accord lenn laay wax rek mooy moo woo artistes yi. Mhm. ñu bañ a dof ñu ñëw adhéré wu. ñu xeex xeex bi kenn bañatuñu nax.

ñii nag dafa am loo xam ne dañ ko junju di doy na boroom xel bi ñëwee stagné wuñu dañoo avancé te nag ñi nga xam ne ay xale leen jiitu tey man da koy wax xale yi jiitu ma ngi topp seen gaa waaye dañu regle nag dégg wala ko rek teggin li ngeen jublu nii mun ci lu ànd ci ak bokk ci nag ak suñu doole xam euh, am nañ yaakaar ci yéen te kulli shay'un alikum ila wajhahu lo gis dina jeex ci aduna doom dess nguurug yalla nguurug yalla rek a dul jeex kulli shay'un alikum ila wajhahu jere ngeen jeuf très bien jere jeuf Aziz mais mais mais mais mais euh, dis-moi problème yi wax ni mom mo waral tay ñu taxawal sodaf ñu gis ne SODAV bi mu juddoo ak léegi ni ay jafé jafé rek lay rencontrer exactement aujourd'hui c'est quoi le problème waaw donc euh, pour remercier rek suñu grand frère yi nga xam ne ñoo fi toog mm. vraiment lu li nga xamné ñun ni sax liggéeyaguñ ko ci musique bi te wóoluñu quand même tek ñu ci kanam di ñu conseiller ah dolel ñu. ñu ñu woté lu ñu woote ñoo fay jiitu. mooy jeunes yi moom ñooy ànd ak technologie donc donc ça c'est quand même c'est <laughs> important. absolument ah, parce que potentiel humain artistique bi am ay yëpp musul am ci ben association dans le domaine de la culture et ñoom loolu tamit c'est très important pour vous dire. euh, côté gestion. Mm. le problème avec la Sodaf c'est quoi ah, exactement. damay damay a damay transition de tout. Mm. ça veut dire a un manque de compétence bu fa gestion douteuse comme li Père Souleymane dit, wax il fayu sax duñ la il faut faire. fay lan la. Ah, ça. nit ki fay sax Il mm, que koy que ak la ci et puis y avait des représentations ñi nga xamni ne ñoo fa nekkoon pour téwol fa artistes yi leen wax la fa donc ça c'est une chose ñu wax SodaF. SodaF c'est une très bonne chose mhm. parce que comme en France muy Adami muy Spedidam muy euh, SACEM dañoo nekk ci loolu depuis 60 ans donc il fallait qu'à un moment donné nous ñu dem ci ñu applaudir mhm. mais transition bi ni mu defee rek ni mu amee dafa am ay problèmes ci procédure Comment? Madame, il y a de grands noms de la musique qui sont là

Nous musique est notre métier. Mhm. Nous choisir. c'est la recherche c'est la passion. ça ne veut pas dire que nous des droit d'auteur on suit l'évolution des droits d'auteur nous sommes à l'aise sur ce sujet-là. depuis la déclaration de l'UNESCO hein, depuis en 2001 droit voisins, voisins, li en fait il y a des gens qui sont euh, euh, euh, proclamés experts c'est leur domaine on les laisse gérer on fait notre musique mais ki nga xamni su défé répartition nga ñëw mu fay la ok war na am sa numéro téléphone. no xaaral ma ñëw war na am sa mail. informer la. pour informer la. c'est pas tout le monde qui lit quand on sait que les les les les les artistes pour la plupart sont des analphabètes nga jël communiqué génne ko ben journal. <laughs> tu ne tu n'informes pas ces artistes là. tu as trouvé un canal bi nga xamni yow la arrangé c'est un lobby ñi nga bëgg ñëk ñokoy ko nga yobbu ko fi nga xamni mo la arrangé. à des heures mais est-ce que Bibi loolu non non c'est-à-dire expliquer euh, dans le cadre de l'AIM si j'appelle une réunion ma je le fais l'après-midi pourquoi parce que les gens ils jouent le soir donc ils ne vont pas se réveiller tôt pour venir Si je que parce qu'on a la base de données j'appelle les gens on leur envoie des SMS mais il y a des grands noms de la musique je vais citer Kumba Gaolo par exemple qui a un répertoire important qui n'avait pas qui n'était pas au courant de la traduction yëgul transition bi ça c'est un problème ça pas dire que SODAV va ba léegi D'accord. na bëgg nañu parce que am nañ ci yaakaar gis nañu statut yi xam nañ ni muy doxee feneen war na mën a yokk liñ ciy gagné mais su ci doxalee nii. ñu nekk si phase de transition c'est quoi donc le problème. Oui waaw waaw je dis le problème c'est que SODAV ñëw na en octobre. octobre déjà en octobre. 2016 en octobre 2016. 2016 déjà en octobre 2016 ñu toog ba décembre ñun ay yem ñu def rétrospective di wax année bi lan mo ci baax lu ci bon lan la améliorer on a tiré la solette d'alarme pour dire que les ayants droit n'ont pas perçu de droits d'auteur toute l'année 2016 ñun ñu kenn ñu wa waaw bah, vous donc responsabilité là responsabilité BSDA bi fi quitté la ak Sodaf combiné parce qu'on percevait les droits d'auteur deux fois dans l'année au mois de mai hein. et au mois d'octobre mm. ñu ba décembre dañ koy wax. suñu xaalis ñoo ko moom fay fayuñu duñ ko wax ñu ne léegi fayu leen yéen fexe leen ngeen fay rapidement ba léegi fayaguñ de ñu toog tuuti ñu dàq directeur bi nga xam ne suñu société la suñu xaalis moo fa nekk duñu xool ba xam directeur ba lu tax ñu dàq ko ndax liñ ko dàqee yoon la wala du yoon ndax moo def wala oh, non non non buuna buuna maleel fa sa société nga moom ko sa alal nekk fa lu fa xew tu te loolu moo musul woon am moo am léegi ak ay yem parce que nous sommes avertis et nous avons la documentation, nous savons exactement ce qui se passe pour juger, pour Khol, ndax li fay dox wala ndax c'est le moment de rectifier le tir hein, pour xam. Hmm. il n'est jamais trop tard. D'accord. On a trouvé que les procédures n'étaient pas normales, hmm. que Wadi n'a pas commis de faute grave. Qu'en trois mois, il a fait 28% de, de, de, haute perception, il a hmm. réduit les charges de 5%. Donc, on se, on lobby qui derrière pour dàq DGB, mm. bi. nga xamni dañ appel à candidat international lañ ko mm. pour def ko ñu mën manipuler. té ñun en tant qu'association aussi on a le droit nous avons le droit de nous prononcer sur ça mais en général là, la war nek euh, je vous explique sodaf déjà. Mm. da war gérer droit d'auteur ak droit voisin. mais dama expliquer ba instant bi doxalinam comme BSDA la parce que mënagul fayu sax. droit voisin ba diko distribuer. d'accord donc. SODAV la ñuy wax mais BSDA mooy dox ba léegi. très bien mais man arme dama am benn problème bu tuuti rek. ah parce que dama gis né euh biñuy wax waxu. euh, euh SODAV hmm. BSDA droit d'auteur droit voisin dama gis yenn ténor yi nga xamante ci musique sénégalaise kenn déggu ci ba tay ni ku ci melni ni Ismaël Lô Youssou Ndour Baaba Maal Omar pen kenn déggu leen ñu wax ci. Wow en quelque mais xam problème yi euh, y a problème en réalité. Youssou n'a pas les mêmes problèmes que Suleiman, par exemple qui, a découvert brutalement la situation euh, Ismaël non plus mm. non plus peut-être Omar Pène dans une moindre mesure mm problème bi ñëpp yemuñu ay ay ay genre étage immeuble la. escalier quoi waaw. Hmm. am ñoo xamné ne quand même xaw nañu organiser wu touti nand nañ affaire droit d'auteur yi comme euh, def affaire BSDA danoon henki penki ñom jëloon nañ sen disposition ca fajar. Hmm. Hmm. mo ñom Ismaïla Lo ils avaient pris leur disposition depuis longtemps mais en s'inscrivant dans d'autres euh, exactement structures euh, voilà ñom dañu jël sen ki dénk ko moy li mo wax sànq dénk ko ñeneen mm. ñoo xam ne ñoom nooy ci li ñuy recouvrer li ñu leen di société d'édition ay société d'édition manque à gagner exactement lool loolu moy mbir mi ay Youssou Ndour mm. ay Ismaïla Lo mm. baba mal ñett ñooñ mom wóor na ma ils ont organisé organiser portefeuille droit depuis longtemps Ils ko ay nit ñoo dañ leen donc nous non non non d'autres non non il y en a par exemple qui n'ont pas de compte non non je sais qui sont pas membres par exemple qui n'étaient pas membres du qui avaient juste des comptes à la et récupérer exactement et nous Ken fay absolument y' a des grands artistes qui qui allaient au BSDA. nous fay le 2000 wala 5000 francs. mais Arma soo amee ça compte c'est... Mmh, d'accord BSDA vire virer 2000 francs Absolument. par contre par contre ils ont intérêt à venir adhérer à la SONAR. c'est vrai tu sais pourquoi. c'est pour les droits voisins. Tu la tey bu taxé dara ci téléphone wala clé. Mmh. droits voisins pour Youssou c'est important wala pour Ismaël je veux dire ils ont intérêt à en fait je crois qu'ils gardent même. Mmh. Hein, des, ils cadrent quand même euh, le BSDA, l'ex-BSDA comme la SODAV, comme aussi société Boakane. Pour une gestion partielle. D'accord. De leur, portefeuille. Attention, gestion partielle, ça veut dire une gestion ah, locale. Voilà. Tout ce qui est de l'international, ils donnent à la SACEM, Une partie. Donc, mm.

Nous avons avec Suleiman Souleymane Faye et sa bande mais je vous rappelle que Dom du Mouiti ngi ci ginnaaw di def ay kër yu am solo. à Cheikh ah, Cheikh Ndigal ah. waaw voilà donc Souleymane légué sur scène. Souleymane sur scène toujours dans grand show sur la magie de la télé. Aïcha, huitième numéro bi ñu dem. Mhm. ñu seetaan Souleymane te hace